démb ci conseil des ministres bi nee na poste premier ministre danañu ko indiwaat ci réew mi yéen gi nee ci atum 2019 bi mu amee ñaareelu mandat la ko fi supprimé woon waaye nag la nga xam ne moo taxoon mu daal ko fi dindi nee woon na dafay def fast track maanaam baral jéego yi yéen kaay gi di réew mi quotidien las vox populi le quotidien nee na projet de loi bi nga xam ne moo fi indiwaat poste premier ministre ni ki démb daat nañu koy defar fas ak li nga xam ne mooy poste premier ministre dañu koy gaawal ci assemblée nationale yéene kaay gi di l'observateur nee na dafa mel ni Macky Sall mi wax ne dafay indiwaat poste premier ministre am na lenn loo xam ne moom lay nëbbu Sénégalais yi maanaam am na ay les uxula Ismaïla Madior Fall nee na poste premier ministre bu ñu ko fi indiwaatee ab gouvernement bu yees la taxawal Guy Marius Sagna nee na Macky lii rek dafay firndeel ne xamul fan lay teg tànkam waaye ne constitution bi torchon la bi di président Macky Sall daat nay d'accord na fast track bi nga xam ne moom la doon wax ci réew mi maanaam da cee lajje yéen a mi quotidien ci xëlim a kaay gi di la quotidien nee na Macky Sall bi di enquête waaye nag nee na bu lépp nag weesoo bu lépp weesoo moom enquête nee na nag ana kan la ñuy samp nag mu nekk premier ministre bu Sénégal yéen a kaay gi di source nee Sall ak doxalin wii nga xam ne moom lay doxee maanaam soriwul ak gaal goo xam ne dem na ba ci digg ndox mi daa di réer maanaam di jeex-jeexe yéene kaay gi di réew mi quotidien ak l'observateur ak enquête ak source ak les échos ñu xëy fekk a fa Ousmane Sonko niki de mu yàkk na musiba ak mbelengana Macky Sall ak Serigne Bassirou Gueye ak doyen des juges ak procureur moom Ousmane Sonko daat nay wax ne su dee am na kenn koo xam ne maanaam nit ko violent la maanaam mooy Macky Sall ndax musu leen a gis may attaqué pouvoir bi saa su nekk bi moo ñuy attaqué te Macky Sall ñëpp daan na leen leer ne respecté wul askanu Sénégal Macky Sall pare na jamono ji ngir jaar ci kaw yu néew ngir nag des ci bopp réewum Sénégal Ousmane Sonko nee na nag lii nga xam ne mooy charte bi lan moo tax du ko signé ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk biñ ko ko andilee dalee na laaj ay laaj yoo xam ne ba léegi amul yenn tontu yuñ ko séendi la Ousmane Sonko nee na leen ndax bu Macky Sall defee nag a ndëngte loolee ndax am sañ-sañ dem ba ca Macky Sall téye loxoma na ko yaa nekkul ci yoona Ousmane Sonko ne xalif généraux yi ñëpp xam nañ ne wax nañu ak Macky Sall te Macky ko kon ana nan la mën a jëfee xam ne mooy procureur ak Maham Diallo mi nga justice ni ki démb Ousmane Sonko yàq na leen musiba ak mbedengaana daan nay wax ne Serigne Bassirou Gueye tàppet la dafa daw yéene kaay gi délibération imaam yi nga xamante ni ñoo ngànk charte bi ñooñe nag Ousmane Sonko wax na leen leer nee na leen su ngeen munta nag yi bàyyi leen ñun ñun lijjantil ko suñu bopp yéene kaay gi di Les Échos nee yeewi askan wi ñoom daan nañu solidarité ak Ousmane Sonko nee nañu duñu signé li nga xam ne mooy charte bi yi sos-war yi ñooñee ñoo ko fa mbaxana doone benn lu toll si juróom benn wéeri kaso la ñu ko tëj daal di koy alamaan lu toll si juróomi milliards yéen a kaay gii di libération xëy dañu xibaar naan ñu Amina Badiane mi nga xam ne mooy organiser Miss Sénégal jamono ci ma ngi ci guddi gu bat sidiko la ndax collectif des femmes daan nañu koy porte plainte am na lu toll si ñaari téeméer ci plainte yoo xam ne daal di nañ ko koy def yéen a kaay gii di Vox Populi nee na ëpp na loolu maanaam ëpp ne plainte ko Amina Badiane yéen a kaay gi dee sat xëy ci Ligue des champions nee na Manchester City Real